dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu ndoo njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nag mu mën a janoo ak Covid 19 maanaam di xeex ak moom ci fast track loole nag tax na mu daal di sàkku ab loi d'habilitation ca assemblée nationale tey ji nag la ñu koy daal di voté loolee sax dina mën a tax Macky Sall man di jël ay dogal ci ni mu gën a gaawee te du jaar nak ci assemblée nationale maanaam du leen xaar ci dara yéenekaay gi di yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu loi d'habilitation Moustapha Diakhaté mi nga xam ne moo jiite woon ay jamono groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar moom nee na àndu ci benn yoon ndax nag soow mi dafa am loo xamante ni moo sey daal di ñuula bu ñu jël prétexte xeex jàngoroy coronavirus ba daal nag wër constitution bi daal di nag caxte caxte li nga xam ne maanaam mooy démocratie ba pare rek daal di fi dagana li nga xam ne moo jëm ci wàllum dictature politique loole nag maanaam du ñu ko nangu benn yoona yéen kay gii di laasa mu ñu xamal lan ñu Thierno Bocoum Moustapha Diakhaté ñooñu nag ànduñu benn yoon ci loi d'habilitation bi yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna moom nag nee na daal daal di votel Macky Sall lu toll ci mille milliards maanaam jox Macky Sall mille milliards yoo xamante ni kenn du ko contrôler kenn du ko saytu loole nag ci boppam bu ñu waxantee dëgg erreur munu koo passé te loolee nag erreur politique la erreur économique la te nag bu ñu fi joxe Macky Sall mille a ëllëg gi si bu fi kenn nekk nag di wax yéen kay gi du l'Observateur ñu fekk fa Ousmane Sonko moom nag nee na loi d'habilitation bi du ko voté benn yoon ndax nag la nga xam ne moom la sàkk woon ku ko ko leeral amul kenn ku ko ko daal di wax te nag mbir mi dafa am loo xam ne dafa daal di làqatu ca biir yéen kay gi di Les Échos mu ñu xamal ñu projet de loi bi kay daat nañu koy xotti traite ba tey ci biir yéen a kaay gi de l'observateur ak Vox Populi ak laas mu xëy di ñu xamal ñu jàngoroy coronavirus daat nay faat ki nga xam ne moom mooy Pape Diouf mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon na nag club bii di Olympique Marseille jàngoroy coronavirus ki mu njëkk a faat ci réewum Sénégal ni ki démb la di Pape Diouf sa hôpital Fann moom nag cas grave yi nga xamante ni moom ngeen doon dégg kenn ki moom la bëggoon nañu koo yóbbu sax sa diwaanu France waaye nag mbir mi mujjul ama njiitu réew mi président Macky Sall ak Matar Ba ak ñoo xamante xamante ni ñu yëngatu ci wàllum football ñoom nag daat nañu sëngéema yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal lan ñu Pape Diouf doomu Marseille bi moom nag daat nay daanu ci ndakaaru yéen a kaay gi nee na coronavirus moom la amee woon les écono jàngoro ji nag daf ko sonaloon loola l'observateur ne atum 1951 si juddu faatu ci atum 2020 gii di Sud Quotidien ak L'As ak Vox Populi ak Libération ñu xëy nag di moolu Covid na yóbbu na ñoom nag ñoo ngi liggéey ci ab vaccin ngir nag mën a gën a janoo ak jàngoroy coronavirus yéene kaay gi mu ñu xamal naan ñu moom l'observateur Moustapha Lo doomu réewam Sénégal nekkoon ca Italie moom tim jàngoroy coronavirus ji moo ko daal di faat laas yéene kaay mu ñu xamal naan ñu soo moytuwulee daal maanaam ci ab confinement la ñu jëm waaye nag région bu Dakar ndax ni ki démb ministre mi ñu dénk wàllum wér gi yaram gi amaloon nag ab réunion d'urgence yéene kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu professeur Didier Raoult moom nag daal nay wax ne chloroquine bi daal daat nay baax daan na say am ndax lu toll si junni ci ay nit daat na leen koy jox kenn kese moo ci faatu te kooku mag la woon ndax ay atam tolloo na si juróom-ñetti fukki at ak ñeent waaye nag moom di jë raawul daan nay wax ne chloroquine bi bu la feebar bi doog di daane daal maanaam mën na laa faj waaye nag bu ñu demee ba nga xamante ni bëy woy na mbuus bu boobaa nag maanaam dootuñu ci man dara yéen gi ba tey mu ñu xamal laa ñu nag Espagne lu toll ci 849 daan nañ say faatu ni ki démb su dee Italie ci 837 yéen kaay gi di xëy di ñu xamal la ñu faatu Pape Diouf nga xam ne ay jamono moo jiite woon olympique marseille daat nay tax ñi yëngatu ci wàllum football ñépp nag xëy di jooy maanaam nag am naqar ak tiis di sëngéem yéen a kaay gi sunu làmb ñu daal di koy jeexale ak mooma xëy di ñu xamal naan ñu nag CNG boo muy tuulee ci rajee dàq ki nga xamante ni mooy Gris doo ci lépp lu jëm ci wàllum làmb ji fa la ñuy mujjee ak mooma ndax nag Gris doo bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoo gën a mën a critiquer Alioune Sarr ak CNG journal bi ne ŋàññ yooyu nag soo xefee fi la Alioune saar di jaare nag dàq na ki nga xam ne mooy Gris doo ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum làmb ji